sama candidature euh, février 2024 ak xeex li nga xam ne war ta nekk mooy li muy jéem mooy troisième mandat boo xam ne bii yoon mayewu ko euh, voilà ngor mayewu ko leneen mayewu ko euh, loolu it dinañu ci taxaw amul dara loo xam ne lii dinañu découragé au contraire tey la ñuy gën a takku pour waxtaan ak Sénégal yi voilà seeti leen Euh, pour que euh, ni ma ko waxee suñu démocratie jëm kanam ak waxtaan ak ñoom programme bi nga xam ne vraiment am naa ko pour euh, candidature élection présidentielle bu 2024 voilà maa koy mag yéen a ko yëgaloon bi jërëjëf mag yéen a ko dëppoowul benn yoon ak yoon moom ci boppam xam na ko waaye nag lii di lii di dara